le livre du docteur Bousso qui revient sur la gestion de la Covid ak le rapport de la Cour des comptes dafa renforcer euh, toutes les accusations que vous avez eu à à à à exprimer. bu ne la dama leen critiquer est-ce que ni ma doon. da dama leen critiquer. da critiquer ñan. Euh, la Cour des comptes. ah la Cour des comptes dama leen critiquer. ndax lan. ah bon waruma waruma wax na j'aurais dit pu dire même quelque chose de plus grave que li ñuy def c'est ñaati nit ñoo dee ci à cause de manque d'oxygène à cause de respirateur yu ñëwul. mais ñoom c'est le contrôle à froid. waaw ah, mais d'accord c'est le contrôle à froid. quand voler de l'argent amène de la mort. Est-ce qu'on a le droit de continuer comme ça? waaw mais il y a des services internes au niveau du ministère de la de la santé. yu waroon a def le le travail. moo tax ma ne la bii ku li compte ñëwee bu busoo ñëwee tamit léegi xaar ba deux ans après ba nit ñi dee ba ñu suul nee dañu doon jënd ay pyjama la ko ñu noon avait besoin de masque hein à Souma pour te dire que bu ñu amee masque rek kenn man rek maa ko jàppale sur les cent douze personnes qui man rek maa ko fa am pendant le travail man rek maa ko fa am parce que une femme a couru en disant bi kaay leen sama yaay dafa sonn j'étais pas habillé may pare génn ma daw avec un réflexe vraiment d'assistance <laughs> pour te dire avec des gants sans gants ma jël defaraat masque bi redressé ko ma commencé nooyi may soog a dem ça c'était le merc le mardi le jeudi je l'ai attrapé mais sinon les 112 personnes bi ñu amee seen casaque am seen masque hmm, amul benn ci 112 personnes yi bu ko jàpp donc ça ça prouve que si on donnait les masques partout où il fallait euh, on aurait pu s'en sortir on bi ñu doon wax ne aussi que mu ngi fii am na amul hmm? bu ñu war a jënd centrale oxygène buy jar 100000 euh, ñu jëm jënd benn bu 30000 <laughs> ça ça c'est arrivé a Fann ici la France c'est arrivé ici une centrale qui on leur donnait de l'argent pour millions boo xam ne day panne tous les jours ñu mujjee obligé fermer service yi le boo xaaree léegi ba ma sonn ba ñu yóbbu ma fu nekk da ngeen naa dama désister muy soog a génne ay pyjama xaalis bu ñu doon jël di ko di ko jënd ay pyjama de pour nelaw ah, man nañu ma jëndal pyjama de bañaar pyjama de bañaar bi laa soxla parce que actuellement xam naa ñi nekk prison ñëpp waroon nañ leen utal ay. <laughs> mais docteur Bousso <laughs> il est parti en plein Covid. Ah, à l'époque en disant quoi. à l'époque moom dans le livre. lu tax deful ni Sonko ñu ñu ràjjee ko benn yoon. c'est-à-dire. Ah, on dit que c'est des secrets professionnels qu'il faut pas dire. mais boo gisee luy rëy nit parce que secret bi secret bu nekk am na fu donc il devait dénoncer tout ça pendant la Covid. Ah, pourquoi pas il a permis que les gens se posent des questions ça ça m'a rejeté de la force man man du ma dem hôpital xaw ma hôpital c'est par les informations et par les médecins qui travaillent avec moi à ce moment que j'arrive man de mosuma teg sama tànk Dantec Dantec mais quand vous faites des reportages où le ministre dit wala on a acheté des belles machines euh, top nga jëm ci internet euh, la machine là coûte 200 euros wala 300 euros